keroog dañ fee commencé benn xalaas bu doy waar. Mm-hmm. benn xale bu jigéen boo xamante ne ji moom. ci mm-hmm. gàttal nee na. Mm-hmm. bu tànn yaay doon am. mu tànn keneen ku bokkut ak ki ko jur. Hmm. lii moom lii moom fekk ma fi. waaw nee na bu tànn yaay am daganoon. Hmm. mu bàyyi ki ko jur mu tànn keneen parce que ki ko jur moom ci jëmi boppam da koy rus présenté. yaay ji day màndi. yaay ji day tux. yaay ji day taxawaalu. Mhm. moom daal di ko metti ci yaayam bari na. jaaxle tax mu ñëw fi. am na lu jàll keroog àjjuma. Mhm. am na luy jàll tey. dégloo. parce que man dama comprendre dama dem ba man damay comprendre seen seen mode de vie moom laa comprendre man nag man sans problème à nekk ku ma dimbali ba mu bàyyi sàngara bi nekk nit mën a lucide uuf njabootam ndax ñu sonn nañ mën a tuub jéggalu suñu borom balaa moo wees. man daal mooy sama problème sonal na ma trop trop trop trop sama xel mënumaa tëdd mënumaa nekk duñu lekk duñu naan sama rakk yi dañuy ñëw di ma ñaanaat pour jënd reer ñaan pour jënd su ma amee ma fayee ko fin du mois ma jënd ravitaillement yóbbu ndu xaalis moom bu la yàlla bañee ba nga jox ko ko pare na kenn du am jàmm dañuy màndi man dañ daan màndi jàpp ma dóor ba muy bëggat yi saaga ma xas ma sama yaram yëpp ay cicatrices la woon te man nag yàlla moo ma dimbali suturaan ma ba mu si ak jàmm na ma parce que man ci li muy dund ci laa jël def ko exemple tonton Ndoye musuma fowee cigarette musuma fowee sàngara chicha sax duma ko café mais lu ne laa daan gis mais du tax musuma dugg ci lu bon musuma def ci lu bon sama yaay lay xool ma ne kii li mu nekk ni mu mel nii li mu dund nii dinaa xeex ba lii duma ko mel ndax dañ naan trompien tay jeex man wax jooju dama ko compte dinaa ko dinaa jël défi ba nga xamante ne doom ji nday ji kenn du ko gis si man waxuma si lu ñàkk fayda kenn xamewuma ko damay bañ damay daan génn sax nit ne ma gis naa sa yaay fii ay boîte de nuit makum jëm sa yaay romb nañ fii sa yaay dajee nañ fii sa yaay dama am loolu nit su ma gisee tey ji sama morom yi nekk ak seen yaay nekk complice buñ amee dara dama waxtaan ak seen yaay buñ gisee dara waxtaan ak sa yaay dafa neex nga nekk ak nit mu xamal la say mbokk nga dem man vie de famille moo manqué dëkk ak sama yaay ak sama papa samay rakk lu ma am bokk ko ak ñoom nit ku ma bëgg a seet si fekk ma sama kër ndaay ak sama kër mbaay fekk ma fa seet si ma fa mais man vie boobu mënu ma ko am mënu ma ko am ndax ñoom dañ ma teg gàcce léegi daal man ma jàpp ne peut-être buñ ko taqalee ak sàngara bi dina mel ni mu meloon parce que ni ko baax la wax dëgg te jëkkëram moo ko dugal ci lii mu nekk dafa dem ba ab kuloo te jëkkër ji mën naa màndi mais bu màndee day tëdd nelaw mais sama yaay bu màndee day génn taxawaalu lu mu am lu mu mënti am même bu dee téeméer la sax pour jëndee ko sàngara sañ naa joxe boppam pour am téeméer ndax jënd sàngara man man kenn laa am na ay mbokk yu nekk ci dëkk bi yu am joole mi tamit comme ay affaire yu doomu baay la ndax seen papa dafa bëri ay jabar ku nekk sa bopp nga tal ku nekk sa famille nga tal ñun nag suñu fami dafa amul doole noonu si ko sama côté maam bu jigéen ay doomam amuñu doole noonu moo tax man kese la lu ma am def naa ko si mos nañoo ah, boole ak benn sëriñ sëriñ bi jox ñu ndox boo xam ne daf koy naan mais benn yoon la koy naan deuxième fois mu arrêté ko jëkkër yi ñëw sànni parce que bu dafa bëgg buy naan wala buy tux du ci wéet dañuy làng toog dañuy tëdd ba guddi ñu commencé xeex jël coiffeuse bi rajo xeex ko suñu kaw ñu dina tëdd ci suuf xeex bi xuloo bi ana sama yëf yaa naan sama yëf naanu ma sa yëf yow yaa ko naan xeex bi mu ni tulli ak Mali quatre heures cinq heures di saaka ndey ku romb ñu waa kër gi yëpp ñu tam leen ay dëmm rajo xeex xeexoo buñ xëyee di nelaw ku def biir ñu ne yaa ngi déranger te bu guddi jotee kenn du nelaw man daal sonn naa ba fa sonn yem li ma bëgg nag mooy nga dimbali ma ku ma mën a dimbali te yàlla rek tax mu tàqalikoo ak sàngara bi moom ak sama papa bu mu nee nekk. mais moom moo ma gën a amal importance ndax man soxla naa vie de famille soxla naa sama yaay bi ma bi ma amoon ba tàqali sama yaay ak sàngara tàqali ko ak cigarette ba mu mën a lucide mel ni mel mën a toog uuf njabootam ndax man li ma ci muccal man gëm naa ni sama rakk yi ndëkk ak ñoom góomu ni nañ ci mucc ndax sama rakk bu góor bi jaanee fa bàyyi jàng day jël di jëlantu da ngay wax mu gëdd la sama yaay day wax sax mu gëdd ko. yuuxu ko saaga ko parce que ci loolu lañ yaroo ci lañ màggee man dama ne ni ma yàlla suturaale ba ma màgg ci te topp ma seen yoon jël sama yoonu bopp nu ma leen mën a sauver ñee ay xale lañ fekku leen ci sama rakk bu jigéen bi si jaaree woon muuru nekk ibaadu mais léegi au fur et à mesure muy dëkk ak ñoom di gis yenn yi parce que protection bi war ci ñoom dañ ko dul am il faut ñu am mag am kilifa bu mën a toog bu leen uuf teg leen ci yoon bu baax sama non bis boo may fàttali ko benn jour dama ko laaj mu ne ko amul sama papa mu ne bis boo amee dix-huit ans naa la wax kan mooy papa bu la ko ay jooy yu métti na boobu sax mel la mel nii mu ne ko ok mais au fur et à mesure ay mag dix-huit ans dix-neuf ans vingt ans waxuma dara man tam affaire yooyu mu ne ma bon je m'en fous quoi xam sama papa ñàkk xam sama papa terewuma dund yàlla baax na bis mu ko waree xam dinaa ko xam su ma ko xamul si buñ déwee dinaa ko xam ma bàyyi noonu mu sedd laaju ma ko waxuma ko parce que des fois sama papa julli bi dafa am daan dóor ñu jotee sa yaay yoru yoruloon dara moo tax ba mu ëmbee mu jiñ ko kooku wax yu ñaaw yu sette la comme comme dafa ñaam làmmiñ dama wax wax yu bon yu ne ma ay waxam sama yaay tam bu xulooweeg moom mer ne ma bu loo kii waxati bu ko faale bu loo xatee dara bu ko tontu ndax jurul la du sa baay diw mooy sa baay man nag affaire yi dem ba joxal ko sama bopp man la sama yoon nekkatu ci mais sama papa jile bi ma am naa ñoom moom ñaari doom dama yor sama kër ak di gérer samay rakk te xam nga mënuma leen a yor bëgg a dem ci sëriñ yi day métti mënuma engage ay sëriñ te aw ma si jàppale man kese maa nekk man kese maa koy jàppale ci seen dundu seen courant des fois seen luwaay aussi te ci sama liggéey rek laa ko yaakaar yaakaaruma ko ci kenn. kon soo ci bëggee nekk dem ci sëriñ day métti lu ñu am ñu bokk ko ñu ngi noonu mën a yor njabootam parce que ci kër aussi amul liggéey liggéeyul ba mu gëj liggéey wax naa def quatre ans xëy ñu compte ñu ñoom ñaar ñëpp dañuy xëy nelaw suba ba ngoon jot ñu yeewu woote téléphone wala ñu envoyé ay rappel moi may ma deux mille may ma mille francs xale yi reeraguñu xale yi añaguñ nii naa loolu la koy jàppee sensibilisation bi mooy que comme parents yi nañu bàyyi xel bu baax seen njaboot lépp lu waay di def nanga xalaat say doom xalaat ëllëg xalaat conséquences yi leen mën a jural wéy dafa dafa am parce que Assane Ndiaye am na woy mu naan yaayam utaloo ma xar fu ma neex daagu mais xam nga tam neexu fu ma neex la mën a daagu utal na ma xas kon waajur yi nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci li ñuy def di xalaat seen ay njaboot. di xalaat seen ay moromu njaboot di xalaat seen ay nawle xalaas. xalaas bi ci topp. ban la. dafa am benn femme. Mm-hmm. bu accouché. Mm-hmm. xam nga li naan meret. Mm-hmm. yëg ci bopp bi. meret waaw dama koy dégg. jàpp ko. ñi mu dëkkal seetlu ne. femme bi meret bi yëg na. parce que dañuy gis ne xale bu ndaw bi mu accouché sax lay jàpp di dóor ak di ko torturer. Hmm. ñu nangu xale bi ci moom. Hmm. femme bi dem. xale boobu ñu nangu woon ci moom. Hmm. am na vingt ans tey. ba léegi gisuñu femme bi. loolu ba mu demee. lañ ko noppee gis xale bi booba da doon nàmp. waaw boobu la yaay soog a accouché. mu gën a dem. Mhm. parce que dañu nangu doomam. Mhm. xale bu ñu nangu woon mu nekk liir tey am na vingt ans. suñu yaay ji. wala yéeme jumul su ma juumul Fatoumata Keita la tudd. waaw. kenn ci mbokk yi mu wax la. ok sama doom mag bu jigéen moo bàyyi ñeenti doomam si gannaaw mu muy dem na xale bi ñetti weer la waaye dafa mel ni mérite yeegoon si moom gis na nu muy toltiire xale bi. bi muy dem ñu nangu xale bi loxom ñu nangu xale bi si nag ñu nangoo xale bi si loxom ci la demee bi mu demee boobu ba léegi ba xale bi am na vingt ans tey bàyyi na fi ñeenti doom ñaar ñu góor ñaar ñu jigéen léegi nag xale yi ñoo jóg di wër seeni yaay foofu ñoom fu ñu tourné ñu ngi wër seeni yaay mais wax nañ ci télé wax nañ lu ne gisuñu ko fenn ma déggoon xibaaram Gàmbi suñu benn xarit moo ko gisoon ah, Kafountine nee na depuis boobu ba léegi nag amaatuñ benn nouvelle si moom doomam yi jaaxle nañ doomam yi wa ngi koy wor fu ne wax dëgg yàlla ñu bëggoon na wax xalaas ngeen jàppale ñu si ndax yàlla mën na cee def ndam ngeen dimbali ñu parce que yéen a ngi dimbali ay ay mbooloo yéen ngi dimbali ay nit xamu leen ko waaye nit ñi gis nañ ndax yàlla mën na leen dimbali ñun tam ñu am si ndam xalaas euh, ki benn boy la boo xam ne dafa bëggoon a jàng bitim réew waaw ñu boole ko benn waay waaw mu dajale ba am trois millions cinq cent hmm. jox waaji hmm. waaji na ko tuy bëgg ma ko waxee lu ma la wax c'est bien fait pour lui waaw ah. ba nag yow dañoo bokkul xol nag waaw ah. déglul booy bi. parce que dama amoon benn problème boo xamante ni daf ma sonaloon waaw problème bi maa ngi ci daw depuis deux ans ba léegi mënuma am pexe dama amoon benn waay boo xamante ni daf ma triandé woon benn somme trois millions cinq cent si affaire voyage euh, d'études à l'étranger waaw. Euh, kooku ñu ngi xamante ci benn école de formation bu nekk fii ci Dakar comme quoi que ni moom dafay yóbbuwaatee ak yooyu noonu léegi bi ñu waxtaanee ba jiboo ci ay kàddu def bilan bi def lépp maanaam voyage bi dafa war a nekk si euh, à une somme de trois millions cinq cent après ñu commencé ñu commencé procédure bi euh, ba yegg ci dem ba déposer visa ak affaire yooyu noonu ñu rejeté ma léegi par la suite après si la si la récupéré quelques dossiers ci moom yi nga xamante ni si lañ doon def si diggante transaction yi ak école bi yiñ doon fay mooy inscription beeg affaire yooyu noonu par Western Union ak yooyu après par la suite si la remarqué ni document yu bëri foo la léegi si la dem ut benn benn benn benn avocat mu gis ko ma waxtaan ak moom jox ko jox dossier bi expliquer ko lépp nu mu demee moom par la suite mu xool affaire gis ne ni document yi li si ëpp ay faux la par la suite ñu def benn plainte déposé ko au niveau du tribunal. après biñ ko jàppee ginnaaw boobu biñ ko jàppee euh, ñu def ñu ñu def procès bi euh, famille am bi am ku porté garant jox ma un million euh, garanti comme quoi que ni dinañ fay somme deux million cinq cent yi des si diiru six mois par la suite mu am sursis trois mois léegi bu mu génnee si six mois yi nii amul benn somme boo xamante ni versé na ko ba six mois yi jeex yiñ ko joxoon ci délai léegi par la suite ma saisir sama avocat waxtaan moom mu ne noo amul beneen possibilité bu ñu mën a def mooy ñu fay contrainte par corps ak affaire yooyu noonu te man amoon amoon moyen pour fay loolu noonu waaw léegi ginnaaw boobu noonu oh, ma koy laaj ndax amul beneen moyen boo xamante ni dinañ ko mën a jàppale lu dul loolu mu ne non loolu kese moo am moyen boobu si no nga jël huissier boo jëlee huissier après ñoom ñu jéem jéem a saisir li mu am ak yooyu noonu. léegi biñ défé lolu UCE huissier yi ñu jël ñaari UCE yo xamanteni ku jël dossier bi rek mom du yeggali mom par la suite man na xanté ak mom ba am dossier document yi mu yi tribunal bi joxone pour mu jëm ut ndimbal fenen léegi bi démé après si la mo jox ay photocopie sax si la dem té bala bo sax xanté nak mom ba sonu mais mu bañ ma jox dossier bi ak yoy non après par la suite si la jël dossier bi gis ben UCE waxtaan ak moom joxo moom mu waslu si axam commencé def démarche yi affaire yooyu noonu ba par la suite ñu retiré si ñu soutiré ci moom benn somme trois cent soixante quinze mille ci deux millions cinq cent yi léegi depuis lors ba léegi nii may wax ak yéen amul beneen somme boo xamante ni versé na ma ko ba tey jii nii boobu ba léegi maa ngi ci daw mënuma dem fenn amul benn pexe amul moyen boo xamante ni mën naa fa dem awma benn moyen boo xam ne mën naa ko jël pour wala pour pour pour fay contrainte biñ ma wax par corps bi pour ñu mën ko jàppaat waaw ba léegi nii nii may wax yéen amoo amoo possibilité boobu noonu jaaxle nag moo ma ñëw ba ci ci xalas pour ñu ma nañ commencé parce que ndaw si waaw Thiès la woon waaw femme ba fi ñëwoon ni jëkkëram dafa takk ñaareel xommal lan ak lan abandonné ko ak doomam yaa ngi koy fàttali maa ngi fàttaliku waaw fàttaliku ko ko mhm. te mu jóge woon Thiès ca Cheikh Anta waaw waaw waaw waaw ah, mooy ba mu naan le président t'oublie oublie le président ah. Ah, voilà jëkkër jee ko oublie mu munu ko loolu laa ko jëkkër ja tontu na nag moo wax a nee na daal lépp le nee na daal li ndaw si yëpp wax lépp day Papa Ndiaye ndeene nee day jëraat déet waaye pourquoi Ndiaye soxna si wala ah pourquoi Ndiaye ah lu mu wax mu ne moom dinañ koñ du joxaat soxnaam wala. moom ah ngeen day papa <laughs> day papa ah, papa baat kay. <laughs> moo gën a rafet moo gën a jekk daal mu wax lépp sunguf meew la. kon ñu xool li waa ji wax déglu aji waaw yow la sa soxna ñu woon jamonoy xalaas muy. Mariama Faye. Mariama Faye waxoon ne yow yaay borom këram waaye dangaa takk soxna dem féete fa maanaam nekk sa benn soxna bi nga takk. Hmm. di ko bu ndoxataal doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan te ay doomam aussi euh, ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekk yow. man Aliou seen laa tudd. Eh, soxna soosu lu mu wax dara amu ci man maay jëkkëram te nekku takku ma ñaareel man aawo laa am ma takk ko muy ñaareel sama aaw mu ngi ci man bi ma ko takkee. seen koñ nanguwu faa jóge nii nii nii nii nii ba muy wax kii bi fekk na nekkul sama kër sama kër caabi néegam a ngi nii bañ na nekkul sama kër nekkul kër yaayam nekkul kër papaam benn kër la àbb foofu nekk fa mook benn gardien kese ñoo nekk ci kër gi moment boobu fekk na mu jël ëmb ko koo abandonné ma génnee ko fa mu të ma continuer di ko jox sama dépense mu yore bopp muy dundal boppam ma koy jox dépense di jox sama kër fale dépense di yor sama bopp bu añ jotoon garage laay dem añi parce que ñemeetuma ko woon abandonné. nee na da nga mu ñëw na suñu dëkk dem tabaski ba mu ñëwee tabaski ji rek dafa tapaas foofu amu fa semaine mu tapaas. fan boobu taateen ba mu ñëwee tabaski dafa tapaas ñib si ci semaine boobu ba mu ñibbisee ci la fen dem def ay plainte yóbbu tribunal mais ba mu demee tribunal ba ñu demee wuy ji tribunal dañ ñoo dàq xam ne lii dara amu ci. mu ñu toogaat bi mu demee ba am doom tamit man ma dem fay ordonnance yëpp génnee ko dem tudd ma ne leen euh, bu ñu tuddee bu demee ba passé ñu préparer bu ñëwee dañuy ngente dañoo bëgg ñu muuraale ko muy bañ mbokk yi di wax ak moom ba mu d'accord ci loolu ñu toog ngoon mu woo ma ne ma day ngente boppam ba ngente na boppam bi muy enregistré lii fekkagul ma fase ko ñu toog ba muy ñëw ci xalaas nii di wax mbir moomu fekkagul war nga fase ko fekkagul nga ma fase ko parce que date bi nga ma wax nii man lundi passé laa ko fase te lundi passé moo xëy a xëy jékki-jékki créer ay affaire woo ma ci papaam xawma ma de doon nappe ba mu waxee wax ni papaam mu ne ñaan may ma sama baat moo ñaan baat ma may ko bi ma ko mayee mu ne papaam manuma ko yoreel ay doomam lundi passé papa ji ne ma kon nanga dem ngoon jëli doom yi ma ne papaam kii bu ma demee dina ma sosal leneen papa ji ne ma booy dem jëli doom yi jaaral fii ñu ànd. ñaata bant la yor. ñett. ñetti bant yow yaa yaa leen jur. waaw ñetti ñëpp. am na ñeenteel bi ñeenti bant la yor waaye premier bi jëkkëram bi mu njëkkoon a am njëkkoon naa am jëkkër am ak moom benn doom. boobu mooy ñeenteel bi doom jooju mu nga fa ñett yi nag laa jur léegi biñ fa andee maak am na benn liir bu tooy xepp bu muy bot waaw boobu mooy sama bos boobu dégg naa sax démb mu koy tudde beneen tur mais loolu yëpp yow da nga ko joxoon tur moom mu changé ko ngénte boppam jox ko beneen tur waaw jox ko beneen ndax loolu ah moo xam ba ma demee daal maak papaam jëli doom yi dugg nag gën dem kër yaayam ñëwaat mu ne papa ji xale yi dematuñu bët set ma ñëw mu fekk arrêt yi ci arrêt bi ñuy taxawaalu ma ne leen lii lan la. yow arrêt bi ngay taxaw ak sa jakarta waaw ma dal di dem gis seen ko mu taxaw ma ne ko yow lii lan la xale yi nga indi fii mu ne ma danga leen di jox ñuy lekk ma ne ko yow dem bu lañ lañ tagoo dem bu ñu ñëw jël si xale yi nga ni duñu dem kon léegi ana loo leen di indi fii mu dem toog fële ma yeb ñaari xale yi nag ci moto bi di leen yóbbu kër papaam sama goro kii ma ko may mu yéeg moto dab ma ba tuuti ñu daaneel ñu ak xale yi. ak liir bu mu boot ak liir bu mu boot créé fa attroupement ma tegaat fa xale yi dem ci papaam nag wax ak moom ci laa dem nag police pour protéger sama bopp ndax def may topp di menacer ci laa ko door a dem. police xale yi mu indi woon noonu ma uuf leen mu may dab ak moto xale yi buñ daanu woon mu am ku ci dee dañ may condamné hmm. moo tax ma dem pour protéger wu. léegi nag yoon nee na ku ci nekk na téye boppam Lima ma intéressé mooy li mu wax nii dara amu ci d' nee na damaa takk ñaareel abandonné ma man takkuma sax ñaareel man aawo laa amoon mooy sama ñaareel dama koo fekk nag mu sëy ba tas am si benn doom ma takk ko moo nekkoon sama ñaareel. est que ci dugg xamoon nga ci ko. xaw ma ci loolu parce que dama ko. lan nga def ba takk ko boo ko gisee. dama ko gis foofu boobu fekk na maa ngi am chantier foofu seen côté gis ko muy souffrir mu sonn. souffrir mel nan mu sonn boobu amul ku ko yore boobu tas naa ak jëkkëram bale. Ah. sësul ci kenn ma yërëm ko ma nekkoon ko nag kon de mën naa la takk man tamit doxaanuma ko lu yàgg parce que man ay caaxaan manuma ko. dama ko juróom. waaw papaam ji ma lay wax nii bu ma ko woowee léegi mu témoin ma moo ma ko may. boo bëggee ma woo ko def téléphone bi main libre boo bëggee xaaral ma woo ko. man maay papaam. waaw. waaw ah, xoolal yaay yaay papi maa ko may Aliou Sène. noo tudd noo tudd. Cheikh Tidiane Faye. Cheikh Tidiane Faye. maa ngi dëkk Cigima Doki. Cigima Doki. waaw. waaw. li mu wax yëpp dara amu ci moom moo jubul moom moo bëgg a sëy moom mooy ñaareel bi kii Aliou Sène aawa moo mm, nga taateen moom moo nekk fii Aliou Sène ne ko léegi da ngay dem sa kër papa wala nga dem sa kër yaay wala nga ñëw da dem dëkk ba moom mu ne demul dëkk ba yaa ngir demul kër yaayam ñëwul ci man léegi mu àbb néeg mu àbb kër nekk fa moog benn maçon maçon boobu man mii di wax ak yow xaw ma ko hmm. léegi tuukee ba ñëw fii mu ñaan baat yaa ngi am na détails yu bëri yoo xam ne sax pour mu gaaw yaa ngi du ma wax mais xoolal moom moo ñëw fii ci gi moo ñaan baat Aliou Sène mhm. bi mu ñaanee baat yaa ngi Aliou Sène toog na lu yàgg ba yàgg mooy mu ne ko comme dangaa ñaan baat sa kanamu baat naa la may sa baat yaa ngi fekk Aliou Sène bëggoon na ci lu yàgg mais xoolal saa yu ñëwee wax rek ma ne ko non booy maa mënu ko muñal yaa ngi comme nag moom moo ñëw ñaan baat ba pare wuufal bëtiku fu Aliou Sène dem mu di ko kar di yàq daram yaa ngi maa ànd ak moom fépp yaa ah. léegi moom. mu ñaan baat ba pare mu ne Aliou Sène léegi say doom ñëpp jël ko même liir bi jël ko. xaw a doy waar trop dafa xaw a doy waar mais yaakaar naa baan am na beneen bu gën a doy waar bu war a yegg si waaw euh, Ndiaye ban euh, xale bu jigéen bi lu méttee méttee méttee méttee méttee moo ko dal Ndiaye mhm. lu méttee méttee méttee ne méttee lim ma njëkk a wax dañ ma sama borom kër góor jigéen la mm. ëmbëtaloo ma caf li defe ne calayam mu ni ma daf maa wàll sida mm. <laughs> man ko foo teg ni góor jigéen la mu expliqué ma foo teg ni dalaa walla sida mu expliqué ma wan ma garab yaag yëpp ak wax ma fa mu jaar ba ni ko da ngaa da amee joomu jàngoro beeg yëpp fa mu jaar ca traitement wa boo doom ji amu ko xam nga sida bi dafa avancé ba nga xam ni su fekkee yaa ngi faju munu ko wàll kenn mm-hmm. su fekkee da nga ëmb am ko tamit soo toppee traitement yi soo doom ji nga ëmb du ko am fi mu ne affaire bi dafa avancé bu baax soo ko amee di faju mën nga am jëkkër te doo ko ko wàll mhm. mën nga am jabar te doo ko ko wàll mën ngaa ëmb am doom te doo ko wàll sa doom léegi si feebaru sida bi foofu la toll léegi ni mu dundee jëkkër ji ba ni mu divorcé ba ni mu amee doom loolu coow la lépp ak la ca xew ak lépp dégluwul ndaw si problème bi ma am mooy ma doon sëy ak ko xamante ni góor la taxaw ma ko woon sëy nañ lu mat ay sept ans damaa sëy woon samay goro ak samay njëkk yëpp. soo xam ne góor jigéen lu tax nga ne góor jigéen. tey su su amee xaritam bu ko seet si daf naan ma bàyyi ñuy waxtaan affaire liggéey ma génn du ma duggaat daal ba mu parce que daf ma naqoon de trop. ay xaritam rek mais musuma gis xaritam bu jigéen am xarit bu jigéen ak góor rek. mais loolu yëpp jàppewu ma kon dara parce que man loolu suma koo foog ne am na si àddina ne dinaa si mos a tase. daaw ma woon ñaaw njort damay toog si buntu kër gi rek bañ dem ma dem sama yoon parce que tamit nit du leen kumpa mosul génn doxantoog man su ma ko nee nañ dem suñu kër mu ni ma xaaral ma mosul ànd ak man fenn bëggul ma génn si kenn daal man daal comprendre du ma daal ma ëmbee nag daanaka ëmb boobu moo feeñal lépp parce que bi ma ëmbee dama dem ba toog bi ma ko waxee moom kontaanul jaaxaloon na ma trop mais man noppi rek. maintenant ma garder sama ëmb un jour xam nga boo ëmbee di nga def test. a dem def test a demee def test ñu ne ma yow mi da ngaa amee jàngoro bi man leen man ñu ne ma man leen man fan laa war a jëlee yoon ñu ah xaw ma de on sait jamais sa jëkkër anam man leen sama jëkkër nekku fi ñu ne ma bu ko ko wax dangay ngay bàyyi ba mu ñëw man leen noo dinaa ko wax parce que man xam naa sama bopp parce que ku la jël jànq génnoo demoo dikkoo boo melee bu la dara dalee da nga ko koo war a wax. dara sax war naa ko moom mu xool boppam. ñu ne ma ah bu ko ko wax léegi nag ñoom dañ ma wut léegi nag ma jël ko wax ko ko ma woo ko wax ko ko mu ne ma maa ngi dem xooli ba mu demee. bi ko ko waxee nu mu def moom. réagir parce que dama ko wax nii rek par téléphone. ko de ne ma maa ngi xool la ma wax. ma toogaat ba ay ngoon ba si suba gi ma ma woowaat kan ma ni ko xool nga mu ne ma waa xool naa mais daa mel ni am naa ma ni ko mais loolu fu mu a jugee fu mu jugee ma ne ko yow kon yow fideloo woon mu ne ma non du lool sax xaaba mu ñëw ñu waxtaan. li xamoon na ko. xamoon na ko man xam naa ni xamoon na ko ndax te moom xëy na daa fajuwul woon wala dara rek léegi ne boo fajoor mënoo ko contaminé keneen. ba mu ñëwee ñu waxtaan ma ne ko man comme que si sëy la ma fekk taxawaalum ma ba mu dal ma kon man garaawul mën naa sëy ak yow mais. souffrance yi nga ma doon teg da nga koy teggi parce que lii rek doy na souffrance yi ma sayaay doon teg yëpp da ngeen koy teggi ma ma ma garde souffrance bi parce que lii rek doy na souffrance ba keroog ma koy mën a dindi sama xol léegi nag ñuy dem taxul mu changé moom changé wul souffrance yi ma doon teg la may teg su ma ko naan kañ doxantu sax si ëmb bi nii day bañ ma ne du ma gunge man doo nga maa génn di doxantu man kese léegi bi ma demee ba ba am doom ma man pourquoi man ma ñu ñu teg ma jàngoro bi ba pare euh, ba pare di ma teg souffrance lan moo tax ma fiy toog est ce que mënu maa dem parce que am yàlla yàllaay bu ñàkk yàlla yàllaay bu tax parce que boo àndeeg yàlla rek yàlla dina la jàppale après bi tuddee ba pare c'est là dem man ma woo samay parents man leen damay divorcé papaam avant loolu woo naa papa bu avant may am doom ma ne ko pa ma ne ko papa mënu maa am ma ne ko man de dama feebar feebar nangam ñoom dañoo xam man si ma xalaat man ñoom dañoo mel ni dañ koo xamoon ba pare xëy na seen doom xamoon nañ ju jukko ban la am ñun nañ ko takkal jabar pour mu changer man loolu laa gis man. mais tax taxuñu taxul mu changé xataa parce que jukkoog borom pax jël yëpp yóbbu suñu kër jël xale bi yóbbu traité xale bi ñu ne ma da nga koy nàmpal un an boo ko nàmpalee un an après yàlla mën na def. Euh, moom dara bañ koo dal. dara dalu ko. voilà léegi yow naka nga xamee ni góor jigéen la. ñëwee muy wéet ak ñi ay xale yu góor yi te man du lii te si laa commencé di seetlu di seetlu un jour léegi ngoon bu jotee mu takk dàllam dem ne day dem entraînement. dañ naan boo booy seetlu nag di nga gis bu daan tëj téléphone am sement bi yëpp dama ko doon xam un jour maa ngi ci kaw bi moom moo ngi ci suuf mu pare. muy tijj téléphone bi ma gis éma bi ma bàyyi ko ba mu takk dàllam ba dem entraînement bàyyi fi téléphone toujours daf ko daan bàyyi moom léegi nag ma ma jël téléphone bi ko. douche boo xamante ni pendant yaa ngi koy raxas war ngaa xàmme douche boobu laa yaakaar ma gis mu photo ci ay photo yu ñaaw. photo wu ñaaw sax boobu amaguma doom maa ngi tiit tiit naa ba jour boobu lu ma yëg sama yaram mosuma koo yëg. xalaas kay. jeexul de. Hmm? kii ñëpp xam nañ ne jeexul. waaw nu ñuy def. a ah, nañ ko yeggale. ah Ndiaye yaa daan dagg de. tey non tey mënuñu ko fee dagg wax ji daanu ah déglu. ma ni lii su ma ko waxee te mu effacé ko léegi dama koy sotti sama téléphone ma jël ko sotti ko sama téléphone. Ah, photo yi lan la. ginnaawam la doon photo feer yooyu. léegi bi ñu demee ba mu yàgg ma ni ko yow. ma ma ko. fi mu toll nii ba boobu am naa doom ba pare ma ñëw man ko bu damay waxtaan ak yow entre man ak yow man ko gis nga boo ma jaayee rek làmmiñ ma gën laa rëy làmmiñ ñëpp xam li nga doon soo wa soo nee tekk nag wax ma dëgg ma xam ni lii mooy dëgg bi ku nekk mu yem si entre nous li mu ne ma loo bëgg a xam ma ne ko yow gis naa si sa téléphone ay photo yoo xamante ne sa ginnaaw bi nga jël photo ko ba pare yow te man fi ma doon fajoo doon nañ ma est-ce que ñooñu duñu ay ay góor jigéen affaire yooyu ba ma naan ko kooku yaakaaruma ko ma ne ko yow bu fekkee góor jigéen nga nga wax ma. góor jigéen laa mais bàyyi naa. ma ne ko bàyyi nga mun ma man ko mais man mun maa man damay divorcé ak yow parce que man sama diina mayu ma ma sëy ak yow jàngu ma de ne dinaa waxtaan ak ñu jàng man boo bàyyee ak boo bàyyiwu yëpp man pare naa si yow. léegi maa wax ko yaayam fekk avant loolu dañu daan waxtaan ni ñu naan ay daa am ñoo xamante ni ñu naan ñooñu ay góor jigéen la yaayam naan man de sama doom di góor jigéen affaire yooyu te moom waxaguma ko mi ngi mi ngi jéem a protéger doomam te waxaguma ko ma commencé comprendre léegi nag ba ma woo yaayam ba wax ko ko ma ni ko kii de lii ak lii moo nekk si man te moom nee na ma avoué na nee na moom góor jigéen nag te fa yaa ngi nii mu ne ma waaye danga koy muñal rek man de yàlla xam na dinaa la waaw kay dinaa la jàppale dinaa la jàppale lu ma mën dinaa ko def man ko c'est trop man ko pourquoi ba may di son dara mettiw ma dara joruma, ah jàppale woo ma ba léegi lii am nga bëgg ma jàppale kon yow da ma jàppale pour sa doom man da ma jàppale pour sa intérêt moo nga bëgg ma jàppale mais duma ko nangu parce que am yàlla yàlla bu ñàkk yàlla yàlla bu amay divorcé. ma woo leen ñun ñëpp ñu toog ma divorcé. ma ñaan ma ñaan may ma ma jël yi fa nekk yëpp jël xale bi del sama yoon léegi continuer de traiter xale bi trait xale bi ba xale bi léegi macha allah moom xaw ma sax lijjantiwu ma sax xaw ma sul mu nekk. foo leen xamante boobu takk la. suñu mbokk ay bokk mbokk yi am nañ am na ñoo xam ne xam nañ am na ñoo xam ne xamuñu mas parce que am na ñoo xam ne bu ñu xamee ni divorcé naa dañ naan ah diw de xamoon nañ ni ko jigéen la waaye dañ la kaaw ko woon man leen nag da ngeen ma ko waroon wax. parce que man souvent man la ma wax leen kon xam nga feebar bi man mooy sama problème parce que léegi sax wàcc na au début dafa diisoon si man trop sax diisoon na trop si man parce que su ma toogee di ko xalaat nan nan nan laa nekkee jànq ñu jël ma jànq ba pare lii fekk si ma si am naa ay trente trois ans man leen man quoi man lii man daa damay toog ba mu yàgg mu nekk sama xel. ba pare day am ñoo xamante ne dañ may bëgg xam nga léegi ku ma gis mën na maa bëgg te du xam lu nekk si man kenn laa xamante ni la dem naa dem dem dem dem mu ne damaa bëgg topp ma topp ma topp ma ni xëy na ñëpp yamuñu waaye est ce que su ma ko waxee li nekk si man dina ànd ak man léegi nag ma ni xaar ma tak sama fit wax ko ko parce que góor yëpp ma ko ko ma ko fekk dafa sax ma koxee mu bàyyi mu bàyyi nag takkatu waxtu la si jëm ba man nag maa obligé nag ko ni ko yow dama la seetlu rek parce que xam naa ne su ma ko saa yi ma xoolee bëgg boobu la may xoolee pour bëgguma mu continuer balaa mu koy keneen nag keneen muy siiw ma ni xaaral ma naan ko ma ma. ko da am doomu jàngoro ji rek dafa commencé daw. waaw mu bàyyi ma tout tranquille parce que kooku dama ko nax ni ko dama la doon seetlu rek man dara jotuma ndaxte boo ma xoolee. xam ne dara jotuma nax ko nax ko ba moom comprendre dee dara jotuma man ko man dara jotuma daa bëgg takk su ma ko ni woon waaw mu takk man ko dara jotuma man ko kon yow bu ma feebaroo dang ma fiy bàyyi kon yow soo demoon ba sa jabar feebar dang ko fiy bàyyi kon yow yow soxlaw ma la yow parce que nekkul loo xam ne dañ koy nëbb mais yaa ngi faju normal yi normal si man soo fekkoon ni góor jigéen la sax mu dem ma dem sax mën mën naa dem continuer sama vie parce que ñeneen ñu ma bëgg bari na mais jangor bi tegu sama kaw moo yet sama dom ma ko yor moom nangoot koo gis tegu tegat ko bët xamul dafa ruus parce que ay famille suñu xamal ma dara di def yëpp yor sama dom. beneen liggéey rek boo xam ne xëy na bu fekkee mën naa kaa liggéey mën yor sama dom. ma yor ko si parce que gis nga wax dëgg yàlla aw ma soutien aw ma benn soutien wér trop trop man kese te li ma gënoon a ñor mooy sama doom rek sama doom kese man nee naa su ko xale bi bu ko dara parce que man li ma dund rek jot naa dund dara. ba egg si fii sax mu soog maa dal. ñu te ji fi mu ne mi ngi ci nekk ci dëkk bi taxawal te mën na ko wàll keneen. mën na ko déggoon naa sax temps yii la fee yooyu mais xaw ma. mën na ko waal keneen de mën na affaire am kooku lijjanti ma ko lijjanti ma ko lijjanti ma ay famille en tout cas man maa ngi faj ku ma ku ma gis li ma yërëm wala dara maa ngi faj maa ngi jël samay carte. mais léegi feebar bi yaa ngi faju ba mënatoo koo wàll. déedéet mënatuma koo wàll kenn. faj mi avancé na ba kenn. avancé na daawul faju parce que bu doon faju du ma ko wàll. te kon sëy na du ma si tey du ma ko teel a xam parce que man bu du woon a feebar bi sax du ma xam ni góor jigéen.